ma ngoog eh, Ibrahima Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal mbokk yi ci noonu ñu soo bokk yéen ci xeetu yéenekaay yi eh, fas yéene ko doo rek Walf Quotidien mi jiitu ci fajar waaye nag moo jiitu eh, jëm ci élection présidentielle yu 2024 wàccaay gi yéenekaay bi am taxaw seetlu nag ci Idrissa Seck ganaaw seminaire bu waa parti réew mi yenn yéenekaay bi gis ne Idrissa Seck ba léegi dese na leeral taxawaayam ci yooyu les élections présidentielles yu 2024 ndax candidat lay doonam déet waaye li leer ba leer mooy. tey euh, daanaka feddaliwaat na bokkam ci coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci Walf euh, Quotidien ci xëtam bu njëkk euh, yéen kaay ba ñu dégtal yi tamit assemblée générale bu AFP foofee ca diwaanu Thiès ñi nga xam ñoo dar mbay Dione bu parti AFP bu Moustapha Niass candidat yi yëglu nañu Déthié Fall ne candidat la ci élection présidentielle ñu jëm bokk na ci ñetteelu candidature bu njiit réew mi Macky Sall ci na ba moom xalal nañu yoon njiitu réew mi Macky Sall taskatu xibaar bi di Mamadou Ibra Kane ma ngay xalaat jëm ci élection présidentielle yi gannaaw mouvement bu bees ka mu jot taxawal suñu gaynde yi nga xamante ne ñooy jongante CAN U20 noggatuwaat nañu Égypte mi nga xamante ne booba léegi Sénégal mayu leen lenn ndax ci googule jongante ñeenti bal ci dara lañ leen door waa Égypte Sénégal moom taxaw na ca kaar yàq li des ci googu lépp jongante yéen kaabi di euh, l'observateur xëy duñu jàngatal njiital parti euh, Pastef di Ousmane Sonko yéen ne Sonko mi ku bari pexe la ci wàllu politique ndax bari na saay buñ ko lala leen dëgg sarax mu jéggi ko lala ay pexeem ba mun caa génn euh, yéen a kaabi xëy duñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk a kàddu yamu yëkkati saay su ne Eh, di ko jëmee ci askan wi ak nam leen ci leeralee ci li xew ci yenn dossiers yi eh, Walf Quotidien xëy ñu degtal yi tamit eh, dellu siwaat dellu siwaat gañuy séntu jëm ci couple Wade maanaam njiit ma woon maître Abdoulaye Wade ak soxnaam di madame Viviane Wade ñu ngi leen di xaar ci euh, Ndakaaru l'observateur xëy duñu ko leeralal jafe-jafe étudiant ya ne ca Tunisie euh, fekk baax fii ci Sénégal gannaaw Tunisie mayengo ba tax na ñemeetuñu sax génn ñu nga ca amal euh, seen cours en ligne ndax njortu nañ ne yëf ya mun naa rax bàyyi Samba Boy dugg ca ba fitna leen foofe ca Tunisie yéen a kaabi di eh, Le Soleil xëy wuti eh, fi nga xamante mooy Sédhiou eh, njiit réew mi Macky Sall war fa amal ndajeb conseil des ministres décentralisé yéen a kaabi di ñu xaymal nag lu toll ci ñaari téeméeri milliards yu toftal juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ak lu teg yoo xamante ne jot nañ ko dugal ca diwaanu Sédhiou ci diirug juróom-ñaari at. Eh, capitalu Pakao fas yéene dalal njiitu réew mi eh, Macky Sall eh, dañu waxtaanee lu jëm ca yoon yak éclairage yak maanaam hôpital ya fa ne lu ci mbir moomule dañ ko waxtaanee foofee nga xamante ne mooy ca Sédhiou. yéen a bi di la mandat xëy waxtaanee mbirum Idrissa Seck mi ñu ne daanaka soreetul palais ba euh, jëm ci li nga xamante ne mooy candidature am ci élection présidentielle yu 2024 euh, ndax Idrissa Seck dina taxaw déggal boppam ci yooyu la woteem déet yéen a kii ñu dégtali tamit inauguration di ubbi tepp hopital euh, bu Marsassoum ca diwaanu Sédhiou njiitu réew Macky Sall ñu ngi ko fay xaar ci altine tey ji jëm ci ndajeb gab fa war a amal bu weesoo Thiès ma nga ak ji ca euh, Sédhiou yéen a kaabi di euh, Source A mu ngi ñuy lu waaju ci élection présidentielle yi ñu jëm bokk na ci euh, daanaka gars yi tàmbale nañoo yëglu ñoom euh, candidat yi ku demee ni Idrissa Seck euh, pare na yi tamit ngir dagaan baatu askan wi maître Aïssata Tall Sall ndax dina xàllal yoon jiitu réew Macky Sall ci troisième mandat am déet bokk na ci Déthié Fall mi samp ndëndam ne candidat la ci élection yi ñu jëm yéen a bi xëy ñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk Mbaye Dione yi tamit AFP mamu ne ba tey génnagul. Euh, li nga xamante ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar yéen a bi di yor yor bi mu ngi ñuy dégtal élection présidentielle yu 2024 weekendu candidat yi maanaam candidature yi ñi ci yëglu yëkkati seen loxo ne bëgg nañoo dagaan baatu askan wi buñ ca yëggee 2024 yéen a bi ne ku mel ni Idrissa Seck ba léegi. leer naam leeragul euh, ba léegi nit ñaa ngi ci jeexi jaax xamaguñu ban tànk la sa Seck di jiital euh, ci yooyu la wote ndax day feggoog njiitu réew Macky Sall wala boog euh, kenn ku ne day beru wutali yooyu la élection présidentielle leeragul Mamadou Ibra Kane bokk na ci mouvement ga mu taxawal bees demain c'est maintenant ëllëg tey jii lañ koy tabax Mamadou Ibra Kane ak élection présidentielle ñu jëm ndax dina ci soo bom deet Déthié Fall ne waaj na be noppi ngir doon candidat ci élection présidentielle yooyu le maître Moussa Diop ne dootul deltu ginnaaw dootul maye lenn dina dagaan baatu askan wi ci yooyu la woote comme ñëpp mu ngi ci yor-yor bi kaab yi di 24 heures xëy du ñu dégtal euh, Déthié Fall mi xamle ne euh, waxtu wa yegsi na euh, te pare na ngir doon candidat ci élection yi ñu jëm moom Déthié xam xamle ne daal dina taxaw. Eh, ngir itamit eh, askan wi ñu mun leen a yemale taxaw itamit ci yokk jàmm ci jàmm ji fi ne ci réew mi waaye nag xeex ger eh, fexe ba askan wi tamit gën a am kóolute ci ñiy jiite réew mi dina ci béy waaram delloo askan wi lu ñu moom Déthié Fall moo ni waxee ci biir yéen a bi di 24 heures yéen a cabinet ba léegi Idrissa Seck waxagul waaw waxagul déet ci candidature am gannaaw seen séminaire waa parti réew mi bu Idrissa Seck. mu ngi ci euh, yéenekaay bi nga xamante ne mooy 24 heures yéenekaay bi di le peuple quotidien mu ngi ñu dégtal tournée économique euh, tournée ci wàllu koom ca Sédhiou mi dalal njiitu réew mi Macky ci altine te ji maa nga ca capitalu Pakao yéenekaay bi mu ngi ñu dégtal réalisation gam fa jota amal ak lam fa mbëbët ngir mun ko faa jëmmalaat lu aju ci ay réalisation ONFP eh, ci juróom-ñeenti at yéen kaa bi dikkaat na ci élection présidentielle yu 2024 xalif bu Thiénaba eh, jot na xàllal yoon njiitu réew mi eh, Macky Sall ne yeyoo na am ñaareelu mandat gu juróomi at ci élection présidentielle ñu jëm mu ngi ci le peuple quotidien yenn a bi di réew mi euh, quotidien mu ngi ñuy dégtal euh, IDEC euh, Macky Benno ndax du mujjee am ñaari candidat yoo xamante ne kenn ku nekk dina dem dagaani baatu askan wi ku demee ni Idrissa Seck mun na ber langue boppam njiit réew Macky Sall mun naa ber langue boppam wala boog keneen euh, bawoo ci coalition Benno Bokk Yaakaar dem dagaani ji euh, baatu askan wi lu toll ci ñaar fukkeelu conférence religieuse jëm ci jigéenu MEDES euh, Mbagnick Diop ak kaddu yam ca yëkkati mu ngi ci réew mi quotidien yéen kaab yi di Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal li nga xamante ne mooy candidature yi jëm ci ñi war a wutu njiitu réew mi Macky Sall ci élection présidentielle yi ñuy jëm masque yaa ngay daanu maanaam gaa yaa ngi tàmbalee feeñ. Idrissa Seck moom feeñaam feeñawul feeñaam feeñagul euh, ba léegi daal euh, kenn xamagul la muy xaar ngir fësal boppam ci élection présidentielle yi ñu jëm Déthié Fall moom daanaka euh, wax naak ñëpp xamal askan wi ne bëgg naa wutu njiitu réew Macky Sall ci élection ñu jëm foofee ca pale ba pare na ba noppi. ngir dagaan baatu askan wi lu aju ci Abdou Mbow moom xam ne ne ma ngay dànkafu ñamu bokkal coalition benn Bokk Yaakaar taskatu xibaar bi di Mamadou Ibra moom yi tamit jëmmal na li nga xamante ne mooy mouvement gamu samp bees fas yéene yëngu ci wàllu politique yéen a kii di alerte quotidien xëy du ñu dégtal wàllu politique. Idrissa Seck euh, këpp na euh, potu soow maak euh, mburo ma mburook soow ma pot ma ko pot mañ ca defoon daanaka wala boog pot mañ ko sotti woon mujjee naa kupp bu ñu sukkandikoo ci alerte quotidien ndax Idrissa Seck ak nam cay doxale jëm ci élection présidentielle yu 2024 lu jëm ci abri provisoire yi nguur gi digge woon ne ab projet tegu na fi ngir fexe daal ba mun a mun fee jëlee li nga xamante ne mooy sàkket yeeg mbaar yi ne ci école yi googu lépp projet la ko gàllankoor ba ba léegi jor ngi ñu dénk wàllu njàngaleek njàng meek njàngale mi Cheikh Omar ann ma ngi cee joxe xalaatam ak li gàllankoor yëf yi bokk na ci entrepreneur wala boog ña ñu joxoon euh, chantier yi te ñu mujjee ca tagatembe mu ngi ci alerte quotidien yéen a kaabi di euh, enquête ci xëtam bu njëkk xëy di ñu enquêtal lu aju ci daanaka eh, yeewi askan wi eh, paaka ñaari boor la jëm ci candidature yu bëri yi nga xamante ne waa yeewi am nañ ko ndax kenn ku nekk bëgg doon eh, candidat ci kàngam yi yene cabinet mun naa jur itamit ndam ci ñoom waaye nag mun naa faf jur loraange ci ñoom ci waayu candidat yi yene cabinet di le point info mu ngi ñuy tegtal Sédhiou ña ngi fay xaar njiitu réew mi Macky Sall yene cabinet jawri gi ñu dénk wàllub cosaan ak aada Sow mu ngi ko fay gàttandu euh, jëm ci euh, maanaam ngan ngam fay amal moom njiitu réew mi euh, Macky Sall waxtaan gu yaatu nag dox ci diggante directeur de l'emploi di Pape Modou Fall ak kuréel